Dionewar Niodior ak Djirnda dëkk la yu nekk ca Fatick juróom-ñeenti waxtu ci guddi moo fa jot waxtoowee jot ci studio RFM xibaar yi guddi gi asalaamaaleykum. Serigne Saliou Seck. élection présidentielle yu atum 2024 fi mu toll am na téeméer ak juróom-benn fukki nit yu yëglu ne candidat la ñuy doon tey jii direction générale des élections ak seen i mandataires doon waxtaan ci parrainage bi waa wàllu ak taxaw ne ñoom ci askan wi lañ koy wute ji yamook sagar di xeeñ ci Benno Bokk Yaakaar ca Bambey dinañ waxtaanee politique ci bii jotaayu xibaar. njàng mu kawe mi tàmbali tey ji ca sànnaar étudiants ya nekk ca université Gaston Berger ne ba tey fitna ya fa amoon jógul seen xel yama ko njàng mu suufe meeg mu digg doomu mi école yu bari woy di tëmb ci ndoxi taw yi amit gox yoo xam ne jàngalekat ya dinañ fa manqué factures yi courant yu seer yi ba àgg ci lool la ñu bari ci askan wi nemmeeku ba tax ñu koy ñaxtu yama ko waa Màkka jama ga ca Richard Toll di ñaxtu facture ndox yu seer Medina Gànna Saar ga ca Kër Masaar ñoom juróomi fan lan toog amuñu ndox mu ñu naan tàggat yaram nawetaani ca Louga aj nan ko ba jëmmi jamono ndax fitna ya fa dëkkee am yaatal geeg Pape Malick Diaw lay doon tour di web en classe bonne santé sunu gantay nara doon Oumar Sy nekk député président commission éducation jeunesse sport ak loisir ci assemblée nationale nar a dellu si ci ubbiteg école bi bu waxtaan ak Mouhamed Jojo ba noppi xibaar yi day buur ñu ñaanalante Abdou Thiam moo nekk ci machine bi Serigne ci kàddu gi mbokk yi am mbégte ak contentement bu mag toog ci studio RFM di leen jottali xibaar yi guddi gi nu leen ko waxee ca bopp ba rek la ñuy duggee yéen ci yaatal gi ñiy yëglu aju ci élection présidentielle yu atum 2024 wéy di euh, bari wàññi bu mujj bi toll ci téeméer ak juróom-benn fukki nit yoo xam si neneen candidat la ñuy doon euh, ba fi nag liñ doon waxtaane moo di wàllu euh, parrainage bi direction général des élections yabal kon seen i ndaw ak ñi nga xam si ñoo di mandataires yi ñoo ñee jot a am na itam ay coow yoo xam si jot na ca am Boubacar Dieng coppite yi mu ngi aji li ñu tuddee élément discriminant jóge ci taayu nit ki ñu remplacer ko ak li nga xam ne moo di date bi carte d'identité bi di jeex wala itam numéro yi ñuy def ci fiche parrainage candidat bu nekk wante li gënoon indi coow moo di nag mbirum doublon rawatina doublon extern yi Massène Papa Gueye jàpp ni nag lii buñ ko defee dafay tax yenn candidats yi duñu mën a bokk moom mooy coordinateur national bu wàllum parrainage parrainage ci coalition bi ñu tuddee coalition pour un Sénégal nouveau di ko jiite di Mame Boye Diao problème bi mu posé mooy suñ demee conseil constitutionnel ñu nekk 160 ñu def tirage yow mi nekk premier amoo possibilité am doublon externe parce que yaa njëkk a déposé sa chance la mais ki topp si yow ba ki nekk 99e bi moom day hérité doublon externe yow yi nga am yëpp donc à la longue moom pour mu am 0,6 pour cent mbala 0,8 pour day posé problème lu du ni mel di circonscription communale andi na jafe-jafe Mouhamadou Mounirou Sy moo fi teewal candidat bii di Mouhamad Boun Abdallah Dionne nekkoon fi ilimaani jëwriñ na wàllu commune mënoon nañ ko ci génne boo dëkkee Grand Yoff commune la nga bëgg a jël ku nekk parcelle dajeeg moom Grand Yoff da ngay mujj jël beneen fiche tudde ko parcelle parce que yaa ngi def circonscription communale Grand Yoff et pourtant au final on compte que la région da doon yombal parce que après da ngay dem di seeg gi di dugal di génn alors que mënoon nañ def Dakar mandataire yi teewoon si bile ndaje yëpp ñoo bokk benn kàddu gi maanaam fexe ñoo indi ay coppite si li nga xam ni moo di dublon externe yi ba fi ñuy wax ak yéen lu ëpp téeméer ak juróom fukki candidat daal nañu retirer seen fiche de collecte de parrainage si direction générale des élections Boubacar wàllu parrainage boobee waa PDS Khalifa Ababacar Sall nee nañ am nañ député yu leen mën a parrainel waaye ci askan wi la ñuy dem uti ko Ibrahima Diame Ibrahima Diame aju ci ñi nga xam si ñoo di waa wàllu PDS bokk foofe ak taxawu Sénégal bu Khalifa Babacar Sall jëm nag ci euh, parenage bi nu jàpp ni ñoom ci askan wi la ñuy dem nag ngir daal di koy mën a utee foofe euh, yemb na ñu ànd ci Ibrahima Diame. donte nag am na limu député yi nga xamante ni nag moom la ñu laaj pour parrainage député yi waa coalition taxawu Sénégal nee nañ parrainage citoyen la ñu opté Saliou Sarr moom mooy coordonnateur national parrainage. parrainage ci taxawu Sénégal. taxawu Sénégal mënul nekk daanaka parti politique bu mag buñ toll na moom te du def. parrainage citoyen mën nañu wax ni tey dans toutes les communes du Sénégal taxawu Sénégal ma nga donc si département yëpp ñu ngi fi jas département diaspora yëpp donc kuréel bu mel noonu mënuñuy def euh, parrainage citoyen mu nekk animation politique d'abord te du si bokk ak parrainage citoyen bi nag bëri na lool ay risque rejet ak yeneen complication waaye nag waa taxaw jàpp ne ñoom ak seen xam-xam ci mbir mi dara mënu leen a gàntal amuñu si tiitaange parce que def nañ ko déjà en mille dix taxaw laa ne fi ñu toll deux mille vingt trois taxaw Sénégal donc nit ñaa ngi fi doole jaa ngi fi macha allah xam-xam baa ngi fi expérience baa ngi fi. waa parti démocratique sénégalais ñoom itam parrainage citoyen la ñu opté ndax day tax ñoom ñu mën a dugg ci biir réew mi taseek ñi di militants yi te amuñu benn problème bu ñuy ragal ñu rejeté leen bu ñu sukkandikoo ci Amidou Wane bokk ci commission communication bu PDS. voilà donc ñun amuñu problème parrainage amuñu problème parrainage amuñu problème non seulement pour am parrain yi parrain citoyen yi non seulement mais pour mun koo vérifier wala mun koo tambar. amuñu problème boobu yaakaar nañu am nañu la logistique am nañu aussi les ressources humaines compétentes voilà ñi nga xam ni xarañ nañ si loolu pour ñu mun taxawal euh, pour mun lijjante loolu yëpp. wàllu parrainage bi nag lancé nañ ko officiellement depuis barkaati démb fii ci Sénégal candidat bi nag faw mu am 44 231 000 électeurs fichier électoral bu Sénégal mu ngi toll ci million 7 375 875 inscrits. Ibrahima Diame ay leader yu fare ci Benno Bokk Yaakaar ca département bu Bambey ñoom nag ñoo dajaloo ne nag euh, coow ya am seen biir faw ñu daal di koy euh, lijjanti te ngir loole am nag faw ki nga xam si mooy seen mbër di Amadou Ba dalal leen lu ko moy fa fekkee département ba dinañ fa yéex a dégg daali Babacar Diouf. benn Bokk Yaakaar wéy di detteelu ci diwaanu ba Bambey ci ay élection yi nga xam ne moom lañ jot a génn wante ba fii de kenn toggagut wax wala sax xalaat lan moo war a tax ñoom ñuy ñàkk élection yi fii ba tax benn collectif juddu ñu leen di wooye collectif pour la redynamisation de la coalition Benno Bokk Yaakaar ci diwaan bi professeur Djibril Thiaw moo ko jiite. lii suñu defet yi bari lépp ak li muy tegaloo yépp jéemuñu dara pour daje. pour xool lu ko waral. pour xool nu ñuy def ba loolu dootul am. te defet yi bari na. te metti na. te sax yenn saa yi. day xaw a gàcce. ñu lim ci ay au conseil des collectivités territoriales ay maire commune ay directeurs nationau ak ay responsables yoo xam ne ni ñu ngi ci grande coalition présidentielle ci diwaan bi ñoom de li ñu bëgg mooy ñu indi coppite ci coordination départementale bu coalition bi fii ci diwaan bi. ñu ngi invité ñu ngi woo président Macky ak candidat Amadou Ba ñoo ngi leen di daggaan ñu jël ci nu mu gën a gaawee ay dogal yoo xam ne dina ngir mën a joxaat askan wi yaakaar mën a joxaat militant yeeg militant yi ak responsable yaakaar ci coalition benn Bokk Yaakaar pour ñu sawaraat sawar cawarte goo xam ne dina ñu mën a yóbbu. ci ndam ci février 2024. jafe-jafe yi ñu yëkkati yëpp teewul ñoom di nee nañ ñu ngi wéy di des ci Benno Bokk Yaakaar te fas yéene liggéey pour président de la République candidat bi nga xam ne moom la samp mu am ndam ci élection yi ñu jëm ñoom nag teg nañ ci ne bëgg nañoo am ndaje ak président de la République ak kii di Amadou Ba Bombay RFM Babacar jaajëf Babacar Diouf ngeen di woy di déglu xibaar yi guddi gi ci rajo Futurs Médias juróom-ñeenti waxtu moo jot ba tegal juróom-ñetti simili yi. ak RFM njàng mu kawe mi daal di dooraat fële ca Sànnaar université Gaston Berger ba fa nekkee ñi la di uh, ndongo yi xëy nañ dem fa niki tey jii waaye nag uh, daanaka bariwuñ noonu uh, te itam nee nañu fitna ga fa mujjee naam moom génnul seen xel naam ne ñi nga xam si naka ñoo nekkee ca course ba ne nañ nañ def seen kemtulaay kàttan ba amal at mu dal seenu Diop. université Gaston Berger bu Ndar ubbi na waaye nag cours dañu tàmbali nànk-nànk fii nag étudiants yi ba léegi li fi xewoon am na lu toll ci benn semaine muy lakk goo xamante ni amoon na ci bërëb bu ni mel. ñoom nag nee nañu ci seen i gis-gis loolee bokk na ci li yàq ubbite gi Abdou Karim Ndongo étudiant la ci licence 3 ci droit public. tout n'est pas réuni au campus parce que récemment village O gars yi dañ ko dafa lakkoon daanaka six chambres lakkoon na donc aujourd'hui waroon nañ jël ay mesures yi nga xamante ni au moins ñooñu bi ñu ñëwee daanu daanu mën nekk en les njàng mi tàmbali waaye université Gaston Berger bu Ndar ku nekk xam na ni. jafe-jafe da koy am saa su ne. loolu moo tax Roqe ñaar di liggéey liggéeykat ci université bi ma ngay gën a xupp ñii di étudiants yi. liggéey comme il le faut yi du ñu mën jàng comme il le faut léegi il nous daal ñu nekk dans la paix mën a jàng mën a liggéey comme il le faut nit ñi am jàmm Sénégal jëm kanam. étudiants yi gis ni ni ñu dellusiwaatee ci université bi ak ni ñu leen teeroo seen xel mën a daal ngir ñu mën a amal njàng mu mucc ayib. Omar Mohamed nekk ci université Gaston Berger. tàmbali nañu bu baax sax. li nga xamante ni mën nañu ko ci wax rek mooy bi ñu desewaatee gis nañu xar ci université bi mu ciy soppaliku. loolu nag ci gën bu baax a baax étudiants yi tàmbali lu jëm ci wàllu njàng mi waaye desewaat bi dañu gis ni taxul ñu bare lool. ci jamono jooje syndicat autonome de l'enseignement supérieur du SAES moom mu ngay xuppa nguur gi di xamle ni fukki fan ak benn ci weeru octobre bi ñu jëm daañu arrêté lépp lu jëm ci wàlluk njàng mi ak itam lépp lu jëm ci wàllu bokk ba ñuy bokk ci activité administrative yi ak ci ndaje yi Ousseynou Diop Saint-Louis RFM. Ousseynou Diop loolee njàng mu kawe mi la mu suufee meeg mu digg doomi mi itam euh, seen i jàngalekat daal dinañuy ubbi ni ki euh, tey jii waaye li ñu nemmeeku moo di ne yu bari wéy di tëmb ci euh, ndoxi taw yi loolu lañ nemmeeku fii nii ci école Manguier bi nekkee ci Dakar Seydina Bilal Niang doxantu woon na fa. amul benn nit bu ñu nemmeeku ci biir école Manguier. fii nag ndoxu taw yi la ñu fa nemmeeku muy jaaba jonge sald de yi xale yi war a jàngi yëpp dañ koo daal dee tëj yenn ci ay table banc ñu daal di koy tegale ci buntu classe yi ci kuuru école bi ñu daal di fay nemmeeku ab moto pompe ngir rek mu mën a nga ci ndoxu taw yi ci place bu nu mel picc yi di ci profito ngir naan bi jëra laaj mooy rek ndax bi école dina mën a tàmmali cours yi ci les conditions jaajëf Seydina Bilal Niang fële ca Kër Massar itam euh, lu gàtt gàtt fukki école yu fa nekkee ba tey ñi ngi ci biir euh, ndoxi taw yi waaye nag terewul ba IEF bu euh, Kër Massar njortu ne ubbi tey jàng tey moom loole lu mën a nekk la dina teggi pexe itam ba daal di àgg ca lu ni mel su lay kaas lay wuyoo ñu teewlu ko Aminata Ba. am école yoo xam ne ba tey nag seen situation xaw na difficile une dizaine d' école yi ci bëri quand mun nañ ubbi le cinq ñu war a mun démarrer situation yu njëkk mooy am na école yoo xam ne am nañ tuuti ndox kel ci classe yi am na ñax d'ailleurs école bi nga xam ne moo ci gënoon a sonn recteur bi mi ngi leen di mobiliser pour ñu seet nan lañuy def ak euh, ñax bi mais mooy dinañ war a mun démarrer quand même ku nekk nag xam nga ne Kër Massar zone inondable la taw yu mujj yi moo changé sax euh, donne bi mais une vingtaine d'écoles lañ amoon inondé sapeur yi am na yu bëri yuñ pompé mais bi mu tawaatee situation bi dafa changé mais néanmoins dinañ war a mun démarrer danañ ko jéem comme ñu ko doon jéemee at yi passé parce que aussi bu fekkee euh, fii ak euh, le cinq ku ci nekk yaa ngi fexe boo souligner sa situation yaa ngi fexe seet nan ngay def ba nga xam ne di nga mun accueillir xale yi donc service d'hygiène yi ak euh, sapeur yi ñoom tamit ñi ngi en action mu nekkoon kàddu yi Juley Kasi moom mooy inspectrice IFB nekkee foofee ca Kër Massar ca diwaanu Matam moom ubbiteke école bi ñi nga xam si nag uh, moo fa nar a am moo di jàngalekat yu manqué ba àgg ci lool ëlëm itam ñi nga xam si ñoo di way juri ndongo yi tax ñuy sàkku ci nguur gi ñu daal leen di àndi li jàngalekat Ali bandeel ñang ndorteelu année scolaire bu doy waar ren ci région bu Matam bëccëg bu njëkk bi ñeel rentrée bile xayma nañu juróomi téeméer ak juróom benn fukk ak ñeent enseignant yu manqué ci région bile. maanaam ren ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak ñeent enseignant baawee nooñu Matam mu ñëw fekk ñaari téeméeri enseignant yi fi manqué woon daaw ñu doxantu ba ca inspection ba dajak fa kilifa ga di mbay baabu académie Matam dafa nekk académie boo xam ni jàngalekat yi toujours dañuy am possibilité mën a demander dem ci yeneen académie xam nga boo baree enseignant yu dem bari déficit démarrer l'année day difficile ministère tamit kon ko xam nañ loolu ñoom dañuy travailler toujours pour jox ñu yeneen enseignant yu xam dañ koy a démarrer école bi ndax ren boo gisee ci suñu limu jàngalekat yi lu toll na ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent dem nañu. di ab situation bu doy waar bi nga xam ni mu ngi jur jiixi jaaxa ci bopp way juru ndongo yi ndax nag diwaanu Matam dañ ko di zone de départ ndax jàngalekat yu bëri bu ñu jeexalee seen formation dañuy ñaan affectation dem feneen lii kon moo tax ba way juru ndongo yi di fëgg seen gémmiñ di sàkku ci njiitu mi mu recruter enseignants yi bawoo ci région bu Matam indi leen fii ñu préparé leen ba ñu pare ñuy ñaan désaffectation dem seen yoon metti nañu trop trop trop ñoo ngi ñaan gouvernement bi surtout le président de la république mu recruter ñu déjà yoo xam ne fii lu ñu dëkk si biir euh, région Matam ñoom peut-être suñu fi nekkee kenn ñu ñaan affectation. ci fàttali nag donte jéego am na waaye ba léegi ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak ñeent salle de classe ci ay abri provisoire la ñu fas yéene doore année scolaire bi mu nekkoon sa naataango Ali Bandel ñaa fi ci ronu Matam pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu fan yi nu weesu dégg ngeen ay gaz yu explosé ba ay doomu aadama ñàkk ci seen euh, bakkan loolee nag la waa total ni façon yi gaz yooyee muy juróom-benn kilo yaak yu juróom-ñeenti kilo yi ku ca yore nga daal di koy andiwaat boo ñëwee dinañ la ko wecc direction général bu total bi nga xam si nag ñoo jibal bi lépp xibaar nee nañ ci jamono yi nu dëgmal dinañ ci amal janloo ko taskatu euh, xibaar yi yamo ak askan wi ñu baree bari nemmeeku ni seen facture courant yi moom dafa cher ba jéggi dayo tax nag ni loolu moom war nañ ko xoolaat bu baax a baax reportage ci mbeddi Ndakaaru yeeg Mamadou Oumar Ba. ibbite école bi ñu nekk tax na mbir yi gën a métti ci Amdi Moustapha mi ne seetlu na ni bu baax ne factures yi dañoo yokk. deux derniers mois yi moom wax dëgg yàlla factures yi dafay leb. bii moom c'est trop. dëgg yàlla factures yi métti na cher na waaw. tout de famille yore say boo yoo xam ne xam nga. bientôt ouverture des classes bu ñu la indilee ay facture day gën a metti te yow ay taaba taaba rek fa am Sénégal ñëpp xam na lu ñuy dund. Oumar Ngalla Cissé bëgg état bi jàppale leen wàññi factures yi ngir mbir yi gën a oyof ci père de famille yi. mbir yi mu neexul il faut ñu nekk ci kaw tamit bàyyi xel suuf. am na loo xam ne nekkul ñëpp ko mën tey ku yor ay njaboot di dundal war a jël chaque semaine courant ak 1000 francs dafa xaw a métti mais ñi nga xamante ne ñoo yor wàllu bu ñu déggee dañ xam ne lii moom ñoom ñoo ko géré donc affaire bi nañu si dimbali quoi. Mouhamadou Lamine Diallo moom ne dañoo war a seet yeneen source d' énergie. waaw ma ne xam nga dëkk bi concurrence concurrence yow def see baax. Euh, parce que buñ juddoo ba léegi seen Senelec lañ xam comprends nga. te ñaan lañ yàlla nag ñu amaat beneen Senelec bu mu tudd beneen xam nga suñu géej gi mën nañ fi toog courant xam nga di servir askan bi panneau solaire yi tamit xam nga war na fi mun a am yoon bu baax bu am fi doole quoi merci si naaj beex ak géej gi waaw ñu normalement waruñu woon fay courant sax ñu ñii ñëpp mu ni dee juillet bi weesu Sénégal def jéego bu am solo ci marché sous régional bi ci wàllu courant réew mi sax dem ba bëgg a jaay courant yenn réew yi ak gaz bi nga xam ne mi ngi ñëw waaye loolu amul dara lu mu soppi ci facture yi di ñëw buñ sukkandikoo ci consommateur yu bari. jaajëf Mamadou Oumar Ba Maka Jama ga ca Richard Toll moom askan wa fa yeewoo facture yu ndox yu cher la ñuy ah, jàmbat boole ji itam ñu ni dañuy toog fan yu baree bari du ñu amum ndox loolu nag lañ bëgg ku leen ca dimbali tax ñu dajaloo woon ca seen penc ma di ñaxtu ngir ñu degg leen mamadu Diagne. ñu sol ay t-shirt yu xonq takkit ay brassard askan wi yowu si dëkk bi di Maka Jama ñu ngi génne di wane li leen metti si naaj wu tàng jiir ñoom ñi lee